نصر من الله وفتح خريب وبسر المؤمنين برام نصر الله دين جاء سما بكي تالبي يتيو نو عند ملك ينسانت يالله وخ الحمد لله على كل حال سما صلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم sallallahu alayhi wa sallam bu nu jiitalee sant yàlla ci façon bii nga xam ne làmb na lépp ala xaal te julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam lay taayeele ko liñ bëgg a wax ànd ak moom bu ñu demee bay bay tëj ñu tëjeeku ko moom mi nga xam ne mooy xatimu nabiyin waaye rasulullahi mooy imaamul mursalin njal mi nag wax ji moo di soññ sama jëmm ji man waaye soññi wàlle leen ci ànd gin ànd maag yéen li tax yàlla sàkk nu borom bi tabaraka wa taala te bu ëllëgee loolu la ñuy laaj mooy nungu ak njaam suñ diggante ak moom moom rek muy sang ndax loo xam ne boo ko nungoo moo am soo meloon ni koy gàntu it loolu rek am leneen lu dul jaam fi yàlla amul fi yàlla yàlla ndogoon na mosoon naa maa wax ci jataay bii ne marché bi ñuy xëyalee suñu borom tabaaraka taala bépp marsandiis walla ay valeur yoo fa yóbbu dul doonub jaamam bu eggee foofa day lamb waxal na ko boppam ni nit ñi ak jinne yi dara saxul ma créer leen ma sàkk leen lu nu bàyyi ma may buur man ñoom ñu doon jaam ñoom te joxuma sama nguur gi te nungu seen jaam gi te du la wax maa xalaxtu wax jaa ngi noonu maa xalaxtul jinn lu tax mu jëkke ko ba noppi nëbbunu ko wal ins mu feeñal nu ñun bandi fàng nii doo ko teg ilaa li yaxagum sëñ bi xam nga moom ñëpp doole moom waaye yebut yàlla nag ñun ni ñu néewee doole waaye ñoo fi gën a ñeme nag ba tax na xam nga borom bi dinay waxe ay wax yaa xawm bokk na ciy waxam yaa ulul albaab bokk na ciy waxam waaye bi ndee ba cëgg desatul ci guy wa mina naasi rek lay wax man yuhjibuka fi lhayaati dunia wa yusidullaha ala ma fi xalbi wa huwa alul xisaam déggal waxeen woowu parce que amatul confiance totale ci noonu yàlla loolu dafa da ngay waaru soxna Paye dem ba yàlla amatul ci ñun confiance seet ba tax buy wax day généraliser ba nga ni nii la muy muy muy muy muy seggat ci biir généralisation bi ay quelque personnes naan am na ci nit ñi xoolal loolu ñoo xam ne ñoom day yàquwuloon bi alsinatihim waaye maa laysa fi xuluubihim sëñ ci bi loolu loolu triste na dañuy wax ci seen gémmiñ wax ju réeree ju ñëpp dégg te lañuy wax gëmuñ ca dara xoolal ma ji wax ju réy egg nañ ci teg dil gi wees nañ ci seen moroomu nit ba yàlla sax lañuy teg dil léegi الذين يخدعون الله wa maa yaxaadi'uuna illaa anfusahum waaye loolu ëpp na dañuy jéem a teg dil yàlla ci kaala gu rëy ba nga defee ni ay mufti lañu yenn saa yi fopp manto ba nga jàpp ni ay imam lañu léeg-léeg ñu sikkil ñu ñu ñu ñu sëqal sikkim ba nga japp ni ñi ay jaamu yalla lañu fop ko paté ndaw tek ci bu né ñen ñu fop maxtu mu reuy wala sax ñu wut garaan yalla né ndekati saaru saaru mart la bare ana koy wax sëriñ bi te boko ko jarabu won du mat sax ndonga bi yalla ko wax ci alcorane di xam nga di terroriser di terroriser ba faf di terroriser borom bi tabaraku wa taala ah daray aduna jaru ko te yalla ko wax ci alxuraan ni ngeen nekk ak man meli ci sof te metti moy matu gi yalla matu wi bu fekke am kabura maqtan indallah seet te te te wataxul ma ngi baram ba mat ba ne da ngeen defee ne comprendre ma seen système waaye seen dara mënuma réer parce que seen xalaatukaay laa toog di leen xaar yàlla ko wax sëñ bi yàlla xam na loolu yàlla nee na seen xalaatukaay falaa loose xaaruma ba ngeen jëf ma doog a xam ne xew ku ci nekk intention bi nga am bi ngay préparé li ngay préparé borom bi nee na fekk na man ma xam li xew ci yow كبر مقتا ان الله نانا لولو ما نقر تي يين نتم تي نين جاب ني مون موكو فاج واي اور بي جوتو كو دكا وير خمغا ريك بون واخاني ريك في نين ني كو خمغا سا بوب في نك كو نيك سا نيك اور بي غاي بريباري سول سا بوب manam manam intention dil bi nga nara préparer bo guéné ci mbéd mi fi né yalla xamna ko yow xam nga jàpp na nga xam sa bopp yàlla réere la loolu nga defe boo xamoon ni xam na la bi nga xamagul sa bopp bi nga xamee sa bopp mu xam na te boo xamatul moo la xam da ngay xam ni ngay def loolu xam nga la la ba waxoon nit ñi xàmmewuñu luy dox ak luy yëngu xam nga dégg bur yi nga jàpp ne mi nga dox fekk bur yi waa bari waaye doxut mooy lafi nekk ku mel ni rasulillah ku xam fi mu tàmbulee ci sero ba yàgg mu am benn un muy moom ak li mu daj ba yàgg mu am Sina Aboubacar Siddiq muy deux di lijjanti ba am Sina Omar muy muy trois di ko def ba am siina osmaan continué ci baalu yu ñëw ak ñi ko topp ñëpp kooku bu la nee fii laa tàmbalee fii dara nekkul su xëyee xëy xëy ba yilif monde bi di nga xam ne mi ngi doon doxal ñuy dem ba benn jamono saaba yi indi ay conflit ci diine ji ba lu yonent bi tabaxoon ci kaw suuf nu fexe ba ba ba mu sànku ci seen loxo njàmbaaru rasulullaay moo moo def Omar ni mu ko def waaye yëfu si jullit yi moo def Omar ni mu ko def xam nga ni njàmbaaru rasul la moo def Seydina Ousmane ni mu ko def waaye terroriste jullit yi moo def Ousmane ni ko def xam nga ni njàmbaaru rasul moo def Seydina Aliou ni mu ko def waaye naafeq jullit yi moo def Aliou ni ko def kon lu yonent bi tabax rek bi mu wanee ginnaaw gaa yi commencé nañ koo màbb seetlu leen li ma leen wax na wala da ngeen a réer Omar dañ ko rey koo xam ne bis bi mu duggee ci lislaam asamaani juróom-ñaar suufi juróom-ñaar ñëpp ànd sibile te fexe ba liggéey loolu ba téye ko kooku du coomo waaye ponkal ma toll noonu ci lislaam mu xëy xëy faat ko butti xam ki liggéey loolu ci àdduna bi kooku du coomo de. waaye ñaari ñaar aslama jibrilu la mirwata mhm. bisni man huwa fawqa kulli xaar ay yoon nga koy répété wa yawma aslama jibrilu la mirwata mhm. bisni man huwa fawqa kulli xaar جبريل الأمير وفاء بإذن من هو فوق الكل خار معلما أن الإسلام فتى عمر لسان بشرى لأهل السماء والكل يختار معلما أن الإسلام فتى عمر سالي اهل السماء والكل يختار ويوم أيوة، أسلم ويوم أسلم جبريل الأمير أتى بذوان وفوق الكل خار سيدي مور ميغي ديف ديكلاراسيون دي واخ سور بي سيدنا عمر آه، دوغي سي الاسلام لان مو خيو ويوم أسلم جبريل لمير أتى باسم من هو فوق الكل خاف borom bi moo ni Jibril dugal asamaan yi juróom-ñaar ni lislaam am na gan gu Omar. So paree ci as fawqal kulli xaar soo paree ci asaman yi juróom-ñaar asamaan su ne diggante ak morom ma tollan diggante suuf si asamaan si boo bëtee juróom-ñaari ba mu jeex suuf nga ko wa yawma aslama jibrilu lamiru ata bini man huwa fawqal kulli xaar jibrilu di waaye wee diggante asamaani juróom-ñaar ak suufi juróom-ñaar di wax ne rasulullah am na gan gu toll ni Seydina Omar wa yawma aslama jibrilu lam irwata bisni man huwa fawqal kulli kafaaru mboolem ku dib yéefar bi Omar tuubee tiit nga mboolem ku dib jullit bi Omar tuubee bég nga wa yawma aslama jibrilu lamiru ata bi izni man wa fawqal kulli xaar ñoom ñëpp jàtt seenu loos nodd gi ngay dégg allahu akbar ca kaw wax ko ci suuf Seydina Omar tax mu am mu ne toj leen tax yi te yëkkati bu fekkee li ngeen wax dëgg la toj tax yamaa nodd loo bilaal ginnaaw yàlla maa tax makka gën gëm jaasimi wa yow ma aslama jibrilu la miiru ataa gis ni man waa fawqal kulli xaar fawqal kulli xaar notoon na ku ne tegal way wi lan la ci teg ma dégg ba xam lan la mualliman alal islam fata umarin ñu ngay déclaré li alil sama wal kullu yakta mualliman ana islamun fata umarin بشرى لأهل الجماعة والكل يختار من نغي خملي أن إسلام الأمر إسلام مي أمر مي تدقو فتا إن كم نسو خمني وهو المتيم سوي الإسلام يوم دار معلما أنا إسلام فتى عمر معلما أنا الإسلام فتى عمر بشرى لأهل السماء والكل يختار كرب سينا عمر دوجي ci diine islam jox rasul lay ñaari loxom wax ashadu an la ilaha illallah wa sallallahu alaihi wasallam busra bég na li ahli sama mboolem ko nekk ci asamaani juróom ñaar معلما أنا الإسلام فتى عمر بشرى لأهل السماء والكل يختار saaba yi ku fekk sa mu toog lëng nga ko fon lexu ndojorom fon bu càmbañam kontaan ni l'islam am na gan ولمن أن الإسلام فتى عمر بسال أهل سما والكل يختار باي شيخ سينا عمر بي بوك تا غاي غاي كين ني مولن وون بام جيني تا غاي غاي كين ني متول جوليدي معلما أن الإسلام فتى عمر بسال أهل سما والكل يختار عمر فوتك فتوى xel ma weesu na ko te foo jàpp ca xel ma fit wa weesu na ko daa gaaw lool nag te mën a xeex walliman ana lislaama fata umarin busra li ali sama wal kullu yaxta bi muy dugg ci lislaam rasul alayhi salaatu wasalaam guddi ko ko jiitu la ñaan borom ko ñaari omar yi bëgg naa nga dëgale ci kenn diine lislaam walliman ana lislaama fata umarin busra li ali sama wal kullu yaxta omar mii kenn la ci jaahil yi abu jaahil mais kenn la woon ci ñoom ñaar ñoom ñaar ay xarit lañu woon معلما أن الإسلام فتى عمر بشرى لأهل السماء والكل يختار bu ngoon Moussa jot bu ñuy defee li ñuy def ñoom ñaar ñooy ànd ñu dem def ci bis bi naan ba man di génn kii tëdd jaaxaan kii tëdd rëfeenu معلما أن الإسلام فتى saaliya lil sama wal kullu yaqta borom bi tabaraka wa taala yónni jibril kan ni ko ne rasulullahi ñaari omar yi nga ca penc ma tudd demal fata umarin bu saaliya lil wal kullu yaqta rasulullahi julli na timis génn sol na mantom mu koy wax wax mu dëgër kan abubakar topp mualliman fata umarin wal kullu bañ ñëwee fekk leen kenn kaa nga defeenu di onku kenn ka jaaxaan di onku rasulay tudd baatub seet yi ba pare door ko ci dënn omar maluman ana lisaama fata umarin busa yalil sama wal kullu yaqta rasulillahi nga naan la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne ëf ne ëf ca ca cënq leen di ko tar ci dënn omar ana lislaama fata umarin busa yalil sama wal kullu yaqta omar ni baxar ñi ne ana kuma dóor ge weesu yam ci rasulaay salaatu wasalaam waaye faaliwu ko jóg taxaw daal di waaxu jëm këram liman al islam fata umar busali lil sama wal kullu yaxtaar soxna mariama seyna omar kere bu ñëwee ci këram dafa fekk sëram am na ko ko takk ñoom ojaaj ak xabaab ñu ngi ci biir kër gi liman ana al islam fata umar busali lil sama wal mu nekkal ñoom ñaar ñu koy jàng ana al islam fata umar busali lil sama والكل يختا دفن شيخ الخديم تا ما أنصلنا عليك القرآن لتسائل تذكرة لمن يخشى لنجل معلمنا الإسلام فتى أمر بسالها سما والكل يختار تمثيلا بمن خلق الأرض وسموات الهلا الرحمن على الأرض استوى معلما أنا الإسلام فتى أمر بسالي jëli sama wal kullu yaxtaar. lahu ma fi samawaati wa ma fi ardi wa baynahuma ba ca wa ma taxta sara. mualliman ana lislaam fata umarin bu saali alil sama wal kullu yaxtaar. xabaat mu ngay jàngal sëru Omar bi saar wi Omar nekk ci ginnaaw permi di leen dégg ñoom ñaar. mualliman ana lislaam fata umarin bu saali alil sama wal kullu yaxtaar. taha turu rasulullah alayhi salaatu wasalaam fukk ak ñeent la boo ko adatoo am na beneen secret bu mu doon ci yonent bi. mualliman ana lislaam fata عمر بزاليا للسماء والكل يقتال جنجل المان سنة عليك القرآن لتسخالي الله وكي تيرم بنجر موار لبنغرغل يا الله صبرو ولمن أنا الإسلام ما فتى عمر البزال يا للسماء والكل يختار بعمر ديجي اي خلم تانغ مفك فرمي نتا اوبي مو داجي بونت بي فك لين سي بير ان الاسلام فتى عمر البزال يا للسماء والكل يختار واخنا لا غور لا كو خامني كو نتي كانام داغا داو كو فيت غيناو دوكو داك معلم ان الاسلام فتى عمر البزال يا للسماء والكل يختار سنا عمر بيمو تيغي تانكم سي بونت نيك بي تك بنن بي دوسيام مو دوغ waa ji doon daa dugg ci rondal gi wawludon analisama mu aj loxo jigéen bi mu jéem a fente ba mu ko dóoree pes ci nopp bi nopp bi ces daa génn day ret mualliman anna lislama fata umarin busralianil sama wal kullu yaxtaar ma mu ne waaw mu ko lan ngay wax fii li ngay jàng lan معلمنا الاسلام فتح عمر بسال يا للسماء والكل يقتا سخنا سو دغر ملي سخنا مريم ني نيكو لي جانغ دوكو مانا لال ان تانك لا بو يو سينا عمر معلمنا انا الاسلام فتح عمر بسرا لال السماء والكل يقتا ديغان بي فرير بي اك سير بي سين ñaar loxoy dem mel ay 40 ka ñuy xëccu téré bi معلمنا ان الاسلام فتح عمر بسرا لال السماء والكل يقتا سخنا سان كونان ngeen baal ma yaa ñàkk jom man yow rek laa am ngay góor bay sab jigéen nga dóor ma ba ma mel nii mualliman anna al-islam fata umarin busali al-sama wal kullu yaxta yow de dafa woon naa ne buñ may ndiiwal doole yow sama mag yaa ma war a laq waaye waroo maa toroxal mualliman anna al-islam fata umarin busali al-sama wal kullu yaxta Omar def nga ma loo xam ne sama ndey musuma koo def def nga ma loo xam ne sama baay musuma koo def mualliman anna al-islam fata umarin busali al-sama wal kullu yaxta sëñ bi Omar mel ni kun sotti paanum ndox mu sedd guy ndax wax ji ko jigéen bi wax أنا الإسلام فتى عمر بساء يلي سما والكل يختار يرم يدو منكم ملير يا رب منكم بلن كل يرنا غيرم سانغو سيت بنوبي معلمان أنا الإسلام فتى عمر بساء يلي سما والكل يختار خادم توب عمر يرن تبي بارسيبي نتي جبريل نيو تي يالا نيو تي واي ndaw si ci la أنا الإسلام فتى عمر بساء يلي سما والكل يختار يلا يوني جبريل موحي رسول الله Abdullahi mu tudd baati séeré ci moom Omar mer waaye soxna see ko sanguloo waliman ana lislama fata umarin bu salia lil sama wal kullu yaqta naka laay def bu dee da nga ne naa set man sangoo naa saabu boros naa bu pare nga ma demal sangu ji waliman ana lislama bu salia lil sama wal kullu yaqta xam nga saabu tilim day dindi waaye du dindi sobe أيوة لمن أن الإسلام فتى عمر وزاليا لسما والكل يختار سير بي عندك عمر جوب كو تي ونك وي نكو دوغال تي ما توك ديك تي غاي ديف بو نوبي ما جوخ لا القران أن الإسلام فتح عمر بشعاء للسماء والكل يختار سير بانكونا رخص صدقوا نيتي وان موخلا نيغاي ديف معلما أن الإسلام فتح عمر بشعاء للسماء والكل يختار عمر صومك بون نوبي خوبي كل سجوم جمخ با سي سي وام رخص كو موخلا نيغاي معلما أن الإسلام فتح عمر بشعاء للسماء والكل يختار بون نوبي يينل فوهما واخلا جابل جابم بن بني من كو نان لا معلما أن الإسلام الإسلام فتى عمر بشرى السماء والكل نصر من الله وفتح خريب وبشر المؤمنين برم الله دين جاء